ثم الصلاة مع السلام على المختار من مضر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فتبارك الله جناب بن سنتي برم سبحانه وتعالى جلك سنغ سنغي نيغي لين دي نيو كو نيك سي تورما سنتم دي لين زياره دي لين دوكل دي لين بالو حق دي لين بال دي نيان برم سبحانه وتعالى يالنا نو بولو جيغل فتبارك الله ديجيتال تي نيو بي سينو كليفا ديني كليفا اداي كليفا فامي كليفا كير يي كليفا بربو ليغي كاي فيب كليفا نيك رك نيغلا فك دلا جوخ سوني لوخي خول دي لا نيو غا نيو والا ني نيغا جابوتو نييب سوكو دافي رك ني نيوات اك يين سين ايميسيون بي دي وقتانو كور سي يور يور كور انا جا سين بوك سين خريف استاذ منصور جا جنتال استاذ ñuy lépp ñu tënk ko ci ñëri ñu chehru ramadan al mubarak ميغا خمانتني الذي أنزل فيه القرآن موني شهر رمضان ميغا خمانتني تيوير كورغي تيلا القرآن واتش كم لنين كواحي وان ديمب باتي أسمان البنل لا تيخيو سوكي خيو تيلان نيو نيوتي بين حديث بو خمانتني وعن عمر بن خطار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه في شهر رمضان وتحرك في فراسه ونقلب من جانب إلى جانب يقول له الملك قم بارك الله فيك ورحمك الله وإذا قام بالنية صلاة يدعو له على الفراس ويقول اللهم أعطه الفرس المرفوعة وإذا لبس ثوبه يدعو له الثوب ويقول اللهم أعطيه من حلال الجنة وإذا لبس نعليه تدعو له نعلاه ونقا وتقالون اللهم ثبت قدميه على الصراط وإذا تناول الإناء يدعو له الإناء ويقول اللهم أعطه من كواكب من أكواب الجنة وإذا توضع يدعو له الماء ويقول اللهم طهره من الذنوب والخطأ دعنا الإيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مدح من ندخم لولا لا نيانال من إذا قام إلى الصلاة يدعو له البيت ويقول من بو تخوي دي جولي نك من برب دا لاي نيانال مو خام سنيك جولي مو خام جاك جا جولي مو خام جولي maanaam sa bërëbu liggéeykaay nga julle mo xam ci saal bi nga julle waaye bërëb ba ngay julle moom moo lay ñaanal yàlla naan allahumma wasia qabrahu wa nawwir xafratahu wa zid rahmatahu wa yanzur allah taala ilayhi bi rahma mu ni barab bërëb ba ngay julle dalay ñaanal ñaanal yàlla kii la yàlla nga yaatal bàmmeelam ndax bàmmeel moom bu xatee rek li mu xat ci gasin doy na waaye bu xatee la ca xat yaa ko yóbbu bu yaat yaatoo la fa yaatal yaa ko yóbbu yaa fa yóbbu mun yàlla yàlla nga yaatal bàmmeelam waaye yemu ci yàlla nga leeral bàmmeelam ak ay wàllam yépp moo xam bu dekkee ëllëg moo xam bu nekk biir bàmmeel moo xam lu mën doon yàlla nga leeral ay mbiram waaye yemu ci yàlla kii yàlla nga yokk yërmandem mooy sa jaam bii nga xamante ni dafay woor ba pare taxaw di julli mu ni yàlla nga yokk yërmandeem bu ko defee yàlla nag jël ay bëtam yu tedd ya comme ci waxin ñu mën ko déggin di la xool bëtug yërmande waaye duñ ci am wa yaqulu inda daay mu ni ginnaaw ñaan nga nag borom sama taxal day wax ni yaa abdi yow sama jaam bi min ka duwaa yow kat yaay ñaan yaay ñaan de kon boo jullee pare nga tàllal yàlla loxo yàlla taxaw jege day ñëw ni la acca ñaanal yor la déglu ndax bi ci lal ba lal ba doon na la ñaanal yere ñaanal na la dal ya ñaanal na la ya euh, euh, euh, ndox ma nga doon jappo ñaanal na la place ba ñaanal na la lool yep ñaanal na la wa yewit ñaanal min ka dua yo ya ñaan de yàlla ni la yo ya ñaan waye nak wa ya abdi min min ka dua wa min nal waye man kan man may nangu man borom wa taala ku ma ñaanal ma ñaan mën nga ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma may leen waaye wa min kal su'aar yow yaay laaj de sa soxla bi nga am wax ko laaj ko kon boo jullee ba pare lu wax sa soxla soxla bu mën a doon bu ko nëbb wax ko yàlla kenn du ko ñaan détail en gros nga koy ñaan lu bare bare ngay ñaan li waa ji ma waxoon ci benn stade bi ma seen démb mu ni am na ab sekkeen la wala jaween mu ni mu ni yàlla noo yàlla may lu mu ndogoo ay ginaar ay ginar ay ay tufé gaa ni wa lol ngeen ñaan loolu mom mu ni wa yalla loko ko ñaan la lemee boo ko ñaanee mboroxe mboroxe la lemee de waaw woor ba ngon dogé mboroxe mom musibé boko ñaané ñaanee mboroxe la lemee de waaw war ba ngon dogé mboroxe mom musibé la motax mu ni ba min ka suaal yow yaay yow yaay laaj dé wa minna nawal way man may joxé man borom subhanahu wa taala may nangul laaj ta may joxé kon nak laaj ma ma jox la wa min ka istighfar yow yaay jéggalul wa minnal xafaraan waaye man may aji jéggalaa kon nam borom subhaana taala kon yow kat dangay ngay bëgg a jéggalu jéggalu ma kon boo wooree bu julli jotee saa boo jullee même bu dul koor boo jullee pare bul yàkkamti jëla sa temps nga ñaan yàlla say soxla yàlla fajal la ko li nga bëgg yaa ko xam yàlla xam na ko waaye ñaanal tuddal yàlla bu ko neexoon du leen di ñaan leen ndax ku nekk la nga bëgg la nekk ci yow yàlla moo la gën a xam ndax moo la la ngay waaj a yàlla xam na ko la nga waaj a mébét yàlla xam na ko waaye tiw daf ni ñaan ma ma may la kon buñ yàkkamte nañu ñaan lu koor gi métti métti lu temps bi xat-xat nañu profité ndax temps xat sa amu fa ñaan borom bi subhaanahu wa yàlla nanguñu ndax surtout ndikk boo wooree ba ngoon ba waaj a dog foofu loo xiif-xiif xam naa li nga muñ diggante xëdd ba heure ndog deux yooyu noonu ñoo gën a gàtt fuuf bala ngay seex tàndam bi yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla day indi noppam ci waxin dëkk ko sa gémmiñ te naan ma ñaan ma may la ñaanal loo ñaan ma nangu ñaanal foofu nag bul yàkkat direct seex tàndal wala lekk dem si yoon déedéet ginnaaw ñaanal soxla boo am ñaanal yàlla dégg na la ak yëpp ñaanal li nga bëgg ñaan lépp ba pare soog a ndaw bu ne allahuma laka suntu wa bika amantu wala risqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma axartu ñaan la de waaye nag am nga yeneen soxla dugal ko si ñaan soxla boo am wax ko yàlla da koy faj ba pare nag nga soog a ndogu mu ngi noonu bu defee yàlla nangu sag ñaan nga am ci bénéfice waaye yàkkamte yàkkamte mel ni sekkeen beeg jaween bi nga xamante bu dog jotee yàkkamte wuñ lu lul lekk bu suur ba la ñoo julli sax xam naa dinañ noppal tuuti ndax li ñuy lekk mooy bëri ci teg kilo ba bëgg ci def beurre sokala mayonnaise juróom-ñaari nen ndambe lu dee nga sol ko ci boole sa ñaari kaasu café boo ko ci dóoree ba pare doo julli ñoom noonu la ñu dogoo moo tax du ñu tala ñaan dañuy yàkkamte dog jot ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu profité ci lekk gi kon mi ngi noonu bu ko defee ñu teg fa suñu baaraan incha allah ba suba ak jàmm ngeen àndoo seen mbokk seen xarit oustaz Mansour Gueye Diène Tall oustaz in nurid ila al islah ma stata'tum wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu